le plateau médical le plateau médical surtout en plus euh, plateau plateau médical bi euh, éducation bi bon éducation bi mu gën a xoolaat. programme politique am jàpp nga si dara. jigéen nga ay minen commune waa jeere min jeere ko liddi so amr baari yo yi hen yeewa liddi jeere ɓe min ngala firgol min ngala kalis eh. komin comiri liddi komin kañen nuñu sohla bari nañu sohlañ pot mobile sohlañ sohla ah, éclation publique éclation dañ ko sohla ak li nga xam ne moo dool xale yi xale yi il faut que ñu gis xale yi mu jox mu jox la nga li nga xam ne liggéey ñu mën ñu a liggéey ñu bàyyi calendrier bi programme programme Macky Sall yëpp yëpp yëpp Dakar la yem lan la def lan la def Fouta gi depuis 2011 ba léegi amuñ benn Syrien amuñ dara. lan nga jàpp si programme politique am. ci programme politique am xanaa boo gisee ñu ñu ñu confiance dafa man de dama am dama am confiance ndax liggéeyam.